mbokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ñaanal mbooleem xalif généraux yi ni ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi nu wér ñaanal bu baax a baax Serigne Mouhamadul Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides nuyu ko ndokkeel ko ñaan yàlla mu bàyyi ko fi mu fekk ay màggal yu bare baree baree baree baree bari noonu la ñoo nuyoo mbooleem njabootu Cheikhul Khadim waaye ndokkeel sunu wóllërey bopp sunu sëriñ sëriñ Bassirou Abdou Khadre sëriñ Abdou Samad Chouaïb bu nu koy nuyu sëriñ Abdoul Karim Mbacké nuyu soxna May Galas sunu soppi boobule soxna Bali Muntaxa nuyu sunu njaate gi nag soxna Muminatu Kebe nu ngi koy ndokkeel ñaanal ko yal yàlla yokk dëgërël dëgëral nuyu borom këram sëriñ Ablaye Tagé mbokk yi am nañu mbégte nuyu borom kër gi président Youssou Ndour noonu la ñoo ñaanalee sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général des Tidiane ak ëttu këru diina jëpp bàyyiwunu kenn nuyu njiitu réew mi mbokk yi xam ngeen ni waxtu wi temm temm Touba li fi nekk ci doomu aadama kenn xamul nu mu toll mbégte mangoog tey ji ñu leen mbégte safar ànd ceeg sëriñ Gànna yaakaar na boobaak léegi biir réew mi bitim réew message yi ñëpp bég nañu ci xam-xamam waaye ci mën ko génne la borom bayaan yi waxoon ni fasaxatul kalaam tibqul muqtada xaal sëriñ Gana buy wax nag faaw mu dem ci sa biir xol ndax lu ma la wax rek wax la mbind ba am nañu mbégte sëriñ Gana ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ndokkeel bu baax a baax a baax yaakaar naa fi nu yemoon démb mooy ca maa yomba la fa sëriñ ba daj waaye yaakaar na nag boobaak léegi nag fii waxtu wi temb temb mi ngi bëgg ñibbisi sëriñ Gana ginnaaw ba nga nuyoo nga dem direct rek mu xam ñibbisi geeg la xew ca yooya. salaamaaleykum wa rahmatullahi taxa wa barakatu bokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaara ñaanal cheikh mahamadul muntaka sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naa yi mun naa la lislaam yëpp màggale ko ñaanal ko mbooleem kilifa diini yi ak mbooleem jullit yëpp elas pap jaajëf ni ko waxee ci mbégteem safar euh, ci sëriñ bi ñoo ngi woon ci étape bi nga xam ne mooy étape bu lembar na nga xam ne wax na ne def naa fa ñaari at daj naa fa loo xam ne lu dul ruugu génn ci aw yaram rek daj naa ko fa aw yaram rek daj naa ko fa wax na foofee ne daj daj loo xam ne laa yaxilu ibrazuha maanaam di ko nettali sax du yàlla kon ci xeeti lenn yëpp si nekk waaye nag ba mu liggéeyee liggéeyam boobee ba noppi nag mhm. euh, waxaloon boppam ne euh, katabtu yow ma sabta inda galwa baxda jihaadi wa firaaxil balwa bind na bind naa gaaw ca galwa ginnaaw bi nga xamee ne nag liggéey bi jeex na mat na mu defe ko ni ko ni ko daalee woon samaane xijajin ila qalila nga xam ne nattu yu gaa baax yi yonent yi teg nañ ko ci kawam lépp sànni ko ci ay bën dugal ko ci ay fuur boole ko ki gaynde takk ko ci garab fetal dox ko posen lu ne nu def ko mu ne najawtu bi xefsillah min ay ida wali raadahum turan wali karamal jën ba oh. agaadin alxanaanu min kaydi man qala wa saara kanaalul xill wasaare mm, kanaari xel lii baax maa yomba loolu kon day wane ne mucc na ca ya ko ya ko doon gàllankoor suñ borom muccal ko ci lépp loolu nag ba mu amee. lii xasida bi foofu la ko wayee. ah raditu ah. mooy raditu raditu anil mawla fa la ko fa la ko fa ko wayee mooy keroog bi ñu buddee banta bi ba sànni ko rek mu jël ay yàlla génne ma ci gox bu lëndëm bii nga xam ne waa gox bi ay tooñkat lañ waaye teewul mu dellu ci boromam nga xam ne yàlla dalal xelam yàlla teeyal xolam. wax ne mucc naa ci pexe noon yi ak seen mbon nga waaye géejug Maayomba mujj na mel ni sawaras Ibrahima ci mag mhm. mu yaa naaru kuuni baldan wa salaama ala Ibrahim mhm. kon ba mu fa jógee it nag nga xam ne léegi day nekk cent 1902 ci la ñibbisi kon mille 1895 ba 1902 muy juróom-ñaari at yu teg ay weer la Serigne Touba def ci Gabon. allahu akbar liggéey bi yëpp mat lépp rafet. mu joge fa nag ñibbisi 11 novembre 1902 nga xam ne bi mu ñibbisee it euh, wàcc ndakaaru ay fan la fa def rek yàlla ndar. bato bi it ndakaaru la ko. ndakaaru xaar nga xam ne euh, bi mu ñëwee it mag ñi ko doon gàttandoog teertu ànd ak mbégte ci dem gi mu demoon ñibbisi la naaru ganaar ba doon wax ne xawaariquhu yakfiika minha rujuuhu ala xayra xaalin baxdama rakibal baxara mhm. boo ci xamul sëñ bi dara rek doy na ci xar baaxam dem gi dem ci géej gi ñibbisiwaat waaye ala xayra xaalin nag la ci melo wa gën a mat gën a rafet ci la ñibbisee xam nga sëñ bi léppam ay yëngu la mu ñëwee daanaka juróom weer rek defar ci réew mi yàggu fi nga xam ne bi mu jógee wàccee ndakaaru dem ndar def décharge bi mooy wàcc yoonu suuf woowu mu jaaraat nga xam ne ñëw sànnoo si jóge sànnoo si wër yi mu wër yëpp nga uh-huh. xam ne ci la jaar ci dëkk yi jaar ba ñëw daaru salaam jóge fa ñëw sanc dëkk boobu ñu tuddee daarul mannaan te mu sanc loo ko woon maam Cerno borom daarul moxti te maam Cheikh ganale woon ko daaru salaam min ganam gu rëy gu yaatu googu nga xam ne lu ne maam Cheikh Anta tëral na ko ba mu tër nit ngir bëgg ko bégale sëñ bi ak terale ko allahu akbar loolu lépp nga xam ne te waxoon na lahu taala rujuu'i min idaaya ila daari salaami lati tubna bi ji tajdidi te loolu yàlla nungul na ko ñaanam googu. moo tax ba fa jógee it ñëw daarul manaan ak daarul azar ndaam al azar foofu sëñ Mulaay nekk nga xam ne sëñ Mbàkke bu su nekkoon foofu. ba mu jógee foofa it ba ñëw ci jaar jaar nga xam ne daarul manaan fa la jógee waat dem gànnaar xam ne ñaari tukki la nga xam ne xaybatul baxriya bi xaybatul xaybatul albariya. ba mu fi jógee nag la door dem gànnaar gànnaar ñeenti at la fa sëñ bi def ñeenti ati gànnaar nga xam ne moom. bañ ko fay yóbbu jàpp ne ay fitnaak coonaak wala. Mhm. gëm-gëm bi ci murid dañ. Mhm. waaye dégg nga li muy wax xam di wa shukri liman kulli bihi saara. Mhm. lahu wuridan duna suxtin inda sarsaara. lahu thanaa'i wa ridwaani bila soxati musqaadili min banni daymaana ansaara. mag ñi di bàyyi ko fi ci réew mi di xotti ko di ko fekk fu mu mën a nekk. mu garantie leen ci nag inna sarsara qad qasadu ziyaarati faaraxu daarayn aw zaara. fi jógee ba fekk ma fa ngir siyaare si adduna ak alaxira euh, ay bakkaar nga xam ne béréb bu xat la béréb bu tar la euh, moom gànnaar ba mu jógee gànnaar it dañ ko delloo si ci si réew mi ci béréb bu ñuy wax Thièyène Thièyène Jolof Thièyène Jolof mhm. moom mu nekk ci taxta iqamatul jabriya nga xam ne mooy première euh, biñ ko téyee muy résidence surveillée bi mu nekkoon mhm. nga xam ne tubaab yi dañoo avant ñuy ñu koy indi Thièyène dañoo laaj góornóor Louga ne ko nañ xool béréb bu mën a nekk foofu ñu xool ne Thièyène xaw naa soreeg yang-yang xaw naa soreeg sàkkal espace la bu sori digganteem ak raay bi dem na soixante quelques kilomètres fii daal war nañ ko fee mën a andi mu nekk béréb la bu tàng béréb la bu sori béréb la bu manqué am ndox. bañ ko fa indee def na fa juróomi at. def na ci yéen Jolof juróomi at at la fa ginnaaw juróom at yi mu def Gabon. waaw def na ñeenti at gànnaar door defaat juróomi at ci yéen xam ne ci yéen waxuma la nekkin wa waaye ngir nga dem rek boo gisee rapport yi tubaab bi def ngir nga dem ziare ji ko. da ngay dem présenté wu ci wax addi yi ji nga wax ñi ngay àndal ñi ciy war ñi ciy dox. ba noppi juróom-benn nit wala juróom-ñaar lañ ko mayoon par jour mu di leen recevoir waaye teewul nag mujj ci yéen jolof xët mu sanc fa ñaari kër daaru Rahman daaru Xudus def daaru Rahman muy ñaari këram yooyu nga xam ne moom la sanc nga xam ne foofu ca ca ca jàngal na fu boppam junniy kaamil. ca ci yéen jolof ca ci yéen jolof mag ñi bàyyi ko fu ne bari na seex yu bari fa lañ jaayante ak Serigne Touba looloo taxoon Cheikh Ibrahima Diop di mas wax macha allah di wax ne euh, maali li baxdaadi sawqun li wala faaz lakkin bi ruy yaa jolof xat bextu anfaasi xaysul xadimu sawa xaysul muridi xawa sirran yu taxiruhu min kulli adnaasi léegi kat euh, amatuma sax ak bëgg-bëgg ci ci baxdaad wala faas léegi la ma gis jolof doy na ma nga xam ne fa la Serigne Touba nekk fa la murid ba di lamboo sirran yu taxiruhu min kulli adnaasin foofee ba bam fa nekkee juróomi at mag ñi bàyyi ko fu réew mi xëttaloo di ko fa fekk fu nekk nit defa bàyyi ko at yi guddeeg bëccëg mhm. ci la tubaab yi wax na la kon nañ ko jëlee Ceyeen yóbbu ko nag njaareem nga xam ne kon ginnaaw Gabon juróom-ñaari at ya ñeenti at ca gànnaar juróomi at Ceyeen Jolof Ceyeen Jolof mu war a départ Ceyeen jëm njaareem njaareem fukki at ak juróom la def njaareem moom Cheikhul Khadim nga xam ne sëñ Tuubaa fanweeri at ñett nekk na ko ci loxoy nasaraan def na fu fanweeri at ak ñett la nekk ci loxoy nasaraan ndax boo xoolee juróom-ñaari at géej gi ñeenti ati gànnaar juróomi ati ceen fukki at ak juróom tax te iqaamal jabriya ca njaareem 1895 ba 1927. waaye teewul liggéey bi gën a doon waaye teewul liggéey bi mat ndax. di gën a yaatu gën a yaatu gën a dottiku. loolee feeñ na ci waxtu wu nekk ndax bañ koy yóbbu njaareem dane raamu masiir yi. Mhm. ilaa jurbel la daal la sa sin law ayenoo sirra fi sayri maa raamu yéen nag yëf yaa ngi door a kii nag yéen a ma jëlee jeen. waaw jëmee ma njaareem. tey boo leen xamoon li ci dem njaareem gi. ma jege tuba dem njëriñam gi ñeenti mbir la ci xew. ban ak ban ak ban ñaari ko moom ñaari man ñaari da ngeen dee da ngeen am torox ñaari danaa fi sax danaa yëkkati. mbiktim safar Serigne Gana ci télévision Futurs Médias yaakaar na bëgg ngeen Serigne Gana kon. ba suba ak jàmm ba suba